Njaay Ami Njaay Ami Njaay Ami Njaay moo lay ay moo ma eh yo, yow yow gëree nga ah eh, yow ya, fa ya, kii ba daw nii gis nga munu woon sax la alam maaleykum si yow ya bok ci groupe de sa Mandari, hmm. mandaar man ban ban ban ban ban xetu ñak fayda mo nek sama kanam ba nga yam ha ah, man yabu mala la de man li luñ ma wax ne la def buñ la wowe ci ndimbal ndimbal li nekete handicapé yee ko mo man man man man man mandari ban xetu ñak fayda mo nek sama kanam ha ah, bu nu waxee handicapé kay yow yow ak say nawle tax ndax ku la xol xamni ne handicapé nga ha ah, ndax man handicap da nek ci man ban handicap mo nek ci man la bëgg xam yow bay mais ku ne xam nga ne ñàkk bañ loolu day na andi kam <laughs> yow ngay fet nga ne dala wax kaw ma yow da lay iri yow yaa ko iri déedéet su fekk nopp kala ba ngay bëgg man suma man moom moom moom moo ma fekk foofu man fekk ma ko si néegam soo fi waxee fen bii leex maa ko gën a réew maa ko gis nga ana andi lam lambal eh, eh, eh, jay jay naa bul wax jay naa jay naa bul bul bul wax jàpp suba ba léegi maa ngi koy wër xaw ma jàpp moom ma yóbbu poloñ moloñ ak ginnaaw aax yé xool oh, kooku diggam jaal bu yaatu boobu digg amul digg nu noonu la dalaa man defal ok man maa ko man <laughs> ah, yéen xam ngeen dama dama yaakaar da kër gi moom da ngeen yeewu suba teel gént ni yéen ko moom wala kër gi da ngeen bind da leen bind lettre ni yéen a ko moom ba du ngeen fay lu yaas ah ndekete yéen li ngeen fi nekk yëpp dem naa agence gën fay ñetti weer xam ngeen nag lu ma bëgg yëg ngeen ko yéen ñaar ñi ak ka ca des ana ñi ci des na ngeen ma fay sama xaalis à partir de tey fayu leen ngeen ñëpp ngeen génn ci biti kër gi bi ma koy liggéey yéen a toog seen kër gi di noppalu dégg ngeen li ma leen wax xaalis bi laay xaar ngeen fay ma gay faraayam nag gay waaw yow xam nga lan fii gënoo fee réew kenn gën wax gënoo fee tàng kenn diine dangay wax ndànk lu dégg la tontu la doo ñëw ci kër gi nag dinu sëpp moomoo nit ñi léegi ndànk la dégg nga ah, ah, da ngay bëgg a wax naa waaw kay buy leen ma sama xaalis fay leen ma wala ngeen yorul da ngay li may waxat xoolal xoolal xoolal li may waxat ah lu may bàyyee wala li may waxat kii mu ngi nii mënatu maa def dara ah fu mu toll di génn lii li. wala wala soo day soo kii day na de su dee na day ah, bàyyi wàccal oh, so so wàccal loxo bi na wàccal loxo bi na nii wàccal loxo bi mataka mataka déedéet déedéet day faj ngi tane so ah. so oh. naa ngi fi yow nag lu olof Njaay di wax eh. yaay docteur si biir famille eh. ñii nga pikiir leen ñii nga jox leen doom eh. nga entraîné leen voilà am na yaa ngi yaa ngi waxoo dëgg am nga kii lan nga ko waral yaay assassin ci biir fan ah? nii nga jox leen garab ñuy dugg ci douze nii nga faj leen ñu dem armée le soo woon nga ma ba ca kanamu yàlla yéen sunu maam ni la daan faje ku met ku dëkk yi oh, oh, sunu maam ni la doon faje oh. eh, kay baax yaa ngi sentir wér waaw yaa ngi waaju wér bësal bu baax bësal tànk yi nekk yaram bi day kii day day tas yaram da ngaa toog si bopp bi de oh Bas Mas Mas. est-ce que yéen may gis. maa lay séen yii. defaat nañ ji def lu la sax. man nag bàyyi cofte laa tudd maa jekk sàkkar yàlla. <laughs>